salaamaaleykum mbokk internetu dakar net point com comme ni ñu ko defee saa su nekk di leen waral ak kilifa yi ak ndaanaan ñu nekk fii ci Sénégal tey dañuy am mbégte ak contentement di dalalaat euh, mun naa ne sax dama naan dalalaat euh, imam Mame Makhtar Gueye koo xam ne ñëpp ko xam fii ci Sénégal lu ñu def lu dul rek jox ko kàddu yi mu nuyoo après ñu ci waxtaan euh, imam mu di dire ziar. ñu ngi leen di delloo ziar yéen waa équipe bu Dakar net yëpp. animateurs yeeg techniciens yi mm-hmm. te di sóoraale ci nuyoo bi seen i mboolem téléspectateur mm-hmm. di profiter ci bés bu tedd bii ñu weesu mm-hmm. di Aïd el Fitr Mubarak di leen yeesalaat suñu baalu àq di ñaan suñu boroom mu nangul ñu suñu koor jéggal ñu suñu ay tooñ ak suñuy matadi te may ñu ñu téye ko nëgër ni déwén te kenn bañ a manqué incha allah waaw mi nga kooku mooy euh, imam Mame Matar Gueye ndeysaan yaakaar naa ne xàmmee ngeen ko tey lu ñu defee lu dul waxtaan ak moom euh, fi ñu njëkk ñëwee mooy seen manifestation bi ñu gisoon fan yi passé wàllum homosexualité fii ci Sénégal euh, ñoo doon laaj tey maam na ngeen ko gisee ak na ngeen ko doon préparé pour dem xeex loolu noonu ñu bëgg a àndi imposer ko fii Sénégal muy wàllum góor jigéen. Jamra ñi sant yàlla ndax wéetatuñu ci xeex bi. Mm-hmm. ndax bi ñu sosee Jamra. Mm-hmm. en février 1983 ça fait 38 ans. Mhm. wéetoon nañ ci lool mhm. am nañ fi ay procès porté nañ ñu ci plainte franc-maçon yi traîné nañu devant les tribunaux. Mhm. waaye yëpp ñu wétali ko yàlla rek ak mag ñu baax ñi fi ne. particulièrement maam Abdoulaye Sy Dabakh. particulièrement sëñ Abdoul Ahad Mbacké Baye Seydi Thiaw Laye ki ma jëkk a tudd nag di maam Abdoulaye Sy baax am naa yaakaar ne ba léegi boo duggee ci YouTube bi. di nga gis xutba bu tàng ba mu defoon mm-hmm. ba franc yi tiit daal di retirer seen plainte mm-hmm. alors naka noonu itam lobby homosexuel yi mm-hmm. amoon naa fi procès en 2011 yéen a ngi koy fàttaliku ba tax na yàlla def ci ndam euh, parce que kii porté woon plainte itam euh, jour audience ba ñëwul alors tribunal classé ko sans suite alors léegi nag bu ñu bu yàlla dogalee mu am ay kuréel yu kuréel yu kuréel yu jóg. Hmm. lëkkale seen bopp tuddee seen bopp ànd sàmm jikko yi. Eh, di yëkkati kàddu ya Jamra daan yëkkati depuis trente huit ans. Hmm. di xeex borom ñaari tur yi. Hmm. ñun mënuñu dul sant yàlla. rawatina ci lañu bokk. ndax eh, imaam Makhtar Sarr nga ko doon fàttali moom mi yoroon micro central ba keroog. sa place de l'Obélisque. nee na ñu ngi ko sot sos ci atum 2017. alors yàlla dogal na bañ koy doog a sos masuñu ñëwoon sax fukki organisation waaye gis nga yëf yaa ngi yaatu la ligue des imams et des bu oustaz Ahmed Dame Ndiaye mu ngi ci biir le rassemblement islamique bi Sénégal sa confrère Mouhamadou Baro ak euh, wasilam ci biir kuréel bi di professeur Makhtar Kébé ñu ngi ci biir ainsi de suite le comité de défense des valeurs morales bu ñoom sëñ Bassirou Mbacké Cheikh Astou mu ngi ci ànd sàmm jikko yi ba ci sax société civile lu demee ni euh, le collectif des intellectuels du Sénégal de mon ami l'éminent sociologue Malick Ndiaye ak Jamra en tant que membre fondateur kon daanaka daal mat nañ juróom fukk léegi ba tax na li ko kocc di waxee rek lu kenn mën ñaara ko ko dax alors kon nag daje bu mag a mag la woon boo xam ne dafa am lu ko jiitu ndax naka jekk juróom benn weer euh, am na benn tournée boo xam ne moo amoon te coordonnateur ànd sàmm jikko jiite délégation bi di euh, imam Ababacar Mboub daanaka euh, wër matale nañu fukki diwaan yëpp ak ñeent mhm. ak ñeent fukk ak juróomi département yi fépp kuy këru diine nee fa salaamaaleykum mhm. te këru diine yëpp mhm. amul kenn ku signewul pétition bi wax ne àndul ci biirum borom ñaari tur te dafay exiger pour ñu yokk daan yi particulièrement la criminalisation alors kon nag dimanche nag booba euh, askan wi la doon woo voilà tënkal leen fi ànd sàmm ji ko jaar ci région yi ba am accordu xalifa généraux yëpp euh, ba noppi tamit fësal détermination ak dogu bi juróom fukki kuréel yooyu dogu pour que saay-saay yi taafantaloo éducation nationale ku mel ni UNESCO ndeke def ci dëxëñ ay mbirum boroom ñaari tur hmm. alors kon jataay boobu ngay wax occasion la woon ñu yëkkati kàddi kàddu gu dëgër wan ne agenda boobu du fi jaar hmm. te yemuñu ca dinañu exiger état bi mu yokk daan yi hmm. ndax ñoom léegi dañu dem ba beew ba di ci boole di tooñ léeg ma di ci tooñ sama xarit Seydi Gassama bu Amnesty International dama koy faral di dégg ci émission yi naan waaw c'est des minorité il faut pas les stigmatiser ma ne ko sëñ bi fi nga tàmbalee sa kàddu rek tontu nga sa bopp nee nga c'est des minorité waa minorité bu am jom du tooñ majorité ñoom minorité lañu te ñu ngi tooñ ndax tooñ weesuwul guddi gu tedd gu nii guddi lu mawludul nabi ñu di ko màggal ci suuf su tedd bu mel ni fii Cheikh al Islam Baye Ibrahima Niass tëdd Kaolack mm. nga guddi googu mm. nga di fa takk fukki sëy ak benn loolu tooñ la tooñ weesuwul lu day ni grande mosquée de Dakar mm. te suñu borom wax ci suratul jinni wa anal masajida lillahi jàkk yi samay néeg la man yàlla yow sa yu bon nga bàyyi plage bàyyi booru géej bàyyi àll bi yëpp ñëw ca jàkk ja di ko fa def le mois de novembre la fii mm-hmm. ay borom ñaari tur di sëy ci biir jàkk yi. Mm-hmm. mais tamit mm-hmm. kenn mënu ko lim ba mu jeex. sans compter lesbiennes yeeg seen tooñ yeeg kenn mënu ko lim mu jeex moo tax comme que tooñ bi dafa bari. te ngi seetaan loo xam ne wóorul. parce que xëy na yéen Dakar net xëy na ñun Jamra. lu mu ñu metti metti euh, valeurs yi ñuy jàpp di ko jalgati ak yu bon yi ñuy def lu mu ñu metti metti am nañu sagoo. Euh, euh, mu tuddati daa di daa di wanaasu mettit bi. mais du kaawu ñëpp. am na ñoo xam ne dañuy xaalu loolu nag bu état sàgganee ci lañ jëm ndax nit ñaa ngi maar léegi ndem dañuy dem bay nappaaji suñuy jàkk moo tax nag nañ ko criminaliser pour que saay-saay yi ku jógati bëgg a def sa ñaawteef di nga ne ah attention léegi affaire bi dootul délit comme ni ko cent article 319 wax waxee léegi crime la crime la mhm. alors fukki at mën na ma ca fekk kon xaaral ma ma réglé. Mm-hmm. mais comme crime la est-ce que ñu gis ne comme tey jii boo boo violé ñu ja ñu jàpp la tëj la est-ce que tey aussi tamit nekkul ne bu ñu gisee borom ñaari tur yi tamit dañ la war a jàpp tëj la. non non parce que loi boobu euh, suñu yéene la waaye jàllugul assemblée. Mm-hmm. fi mu nekk li nekk en vigueur c'est l'article 319 du code pénal. Mm-hmm. Euh, qui ne criminalise pas. les pratiques LGBT waaye délit rek la. ay trois mois ki six mois mhm. euh, bi nga tudd léegi mhm. la loi euh, deux mille euh, deux mille deux mille deux mille bi ñuy signé en deux mille quinze dafa criminaliser le viol kooku jàll na assemblée ba voté nañ ko mhm. voilà bii nag mébatu ànd sàmm jikko yi la ak kuréel yi ko composé voilà waaye nag amagul ay jéego yi ñu def comme ni Jamra defoon en 2007 dafiy jéego ba dugal ko fa ba am fa député di Abdou mm-hmm. Latif mu défendre ko mm-hmm. député yi jàppale ko mm-hmm. ñu voté ko muy la loi 2007 31 qui criminalise le délit de trafic de drogue voilà loolu mooy une loi ki est entrée dans sa phase active kon léegi trafic de drogue dootul ay 6 mois ki 3 mois minimum 10 ans la assorti d'une amende qui fait le triple de la valeur de la drogue saisie voilà ce n'est pas encore la cas pour l'homosexualité euh, c'est à l'état de délit mooy article 319 bi waaye article boobu dafa nooy et puis dafa leerul mm-hmm. toujours dañ ciy profiter di tuur nit ñi lëndëm mm-hmm. euh, borom ñaari tur yi ku def sa toj toj mm-hmm. ñaari fan ñetti fan ngay def garda bi bu ëllëgee nga génn mel ni kuy kokkali nit ñi ci mbedd mi voilà kon nag am na commission buy toppatoo euh, procédure bi pour que fii criminalisation euh, de drogue jaar te député Jamra dugal ko fa assemblée nationale voté ko moo tax maa ngi profité ci Dakar net leeral ne criminalisation trafic de drogue du état moo ko introduire c'est pas l'état mhm. bu doon état dañ koy tuddee projet de loi parce que assemblée nationale ñaari tànk lay doxe mhm. projet de loi mooy lu jógee ci exécutif bi maanaam gouvernement bi ñu jébbal ko pencu ndawu réew yi ñu waxtaane ko adopté ko mhm. débattre ci euh, discuter ko adopté ko loolu mooy projet de loi mais bu dee benn ci député yi moo ko yëkkati. Mhm. proposition de loi la. Mhm. kon nag la loi 2007-31. proposition mhm. de loi wu Jamra la. suñu député Rahmatullah Ali bu ñuy wax Abdou Latif Gueye. naataangoo député mi jàll jàppale ko loi ba jàll. moo tax trafic de drogue dootul délit crime la. voilà nañu def différence boobu. kon nag article 319 bii nga xam ne. góor jigéen ñi moom la ñuy fab di ñu kàll ndax loolu du sax loi. ay fooxalaate la rek. ndax kuñ ci jàpp balaa deux trois jours garde à vue nga génn dem alors loolu délit la ñun dañ ñu bëgg ñu abrogé ko remplacé ko ak beneen boo xam ne dafay criminalisé. est ce que mën euh, xam tamit keroog LGBT. Mmh. est ce que mën nañoo xam tamit seen manifestation bi euh, pour tubaab yi moo taxoon wala tamit pour Macky Sall moo tax. Euh, waa xam nga tubaab yi mois de décembre bi rek wane nañ fi seen fem. seen fem. Mmh. xam nga 2018. Jamra alerté woon na. Mhm. parce que dafa am suñu benn xarit bu nekk bitim réew daal di sàcc yónnee ñu benn document bu jógee UNESCO. ko mhm. ko signé di Audrey Azoulay. à mhm. l'époque moo doon euh, directrice générale ñu ne dañ ko bëgg a jébbal réew yi nga xam ne dañuy nekk en partenariat ak euh, UNESCO xam nga maa ngi fàttali ne UNESCO mu ngi bànqaasoo ci Organisation des Nations Unies. ñoom ñooy toppatoo lépp lu jëm ci wàllu éducation wàllu culture et cetera mm-hmm. alors document boobu ñun bañ ci amee mm-hmm. euh, euh, ay extrait mm-hmm. ci la Jamra ne point de presse def déclaration daal di ne lii raam nii bu excès suñu doom yëpp dinañ yàqu parce que dañuy wax ni dañuy dugal benn module d'éducation sexuelle à l'école à partir du basage à partir de cinq ans ah su boobaa ñu bari daal di rafet njort rek daal ne ah waaw waaw boo demee ni ñuy expliquer xale yi dans les cours de sciences naturelles mm-hmm. euh, l'anatomie humaine mm-hmm. waaw organisme nit poumon yi nii la demee boo respirer dafay jaar si tracée artère bi jëm ci bronche yi mm-hmm. euh, euh, cœur bi mu ngi nekk à lii lay liggéey lii lay liggéey ah ñu ne kon xëy na éducation sexuelle bi dañuy expliquer xale yi ay cours ci doomu aadama naka la bindoo. Hmm. Euh, bébé bu nekkee ci biiru yaayam. Hmm. bu defee ñetti weer. Hmm. ban formation lay am bu defee jur ñëpp am njort ne loolu la. waaye boo duggee ci document bi xuus ci. sa fit commencé di rëcc. mu am épisode yi ñu naan waaw xale yi war nañu tàmbali di leen xamal ni. ni yàlla bindee benn entité bu ñuy wax homme bind beneen entité. muy femme. am na yeneen xeetu doomu aadama yoo xam ne foog ñu sóoraale leen ndax gisuñu seen bopp ci góor gisuñu seen bopp ci jigéen kon war nañu nampatal xale yi pour ñu tàmbali di am esprit de tolérance pour nangul ñooñu ñu am droit d'exprimer et d'assumer leur orientation sexuelle ma ne kon say jafuur nañu alors ba ñu defee déclaration en 2018 mhm. mhm. presse bi am na sa benn naataango ñun rek la yëpp <laughs> daal di ñu éditorial mhm. Jamra deux points ou l'art de tout gonfler ma ne waaw baax na rek ñu naan Jamra waxati na 2018 waaye décembre le 28 décembre 2020 2020 mm-hmm. malheureusement l'histoire nous a donné raison mm-hmm. dama ne malheureusement ndax bu ñu sañoon pexe boobu daal di nax saay mm-hmm. waaye bi yoon ñoom yónnee kii wu ñu de yónnee wu ñu ay document de jox ko état yi ñoo ñëwal seen bopp seen cadre ñoom ñoo ñëwal seen bopp waaw waaw nasaraan yi ak seen pexe yu bon woote benn séminaire fii ci Saly daal di tëral stratégie satanique woowuñu la yow woowuñu Jamra woowuñu keneen xam nga ku ñu woo hmm. ñi ngànk mbirum jàngale bi ak jàng mi ak njàngale mi mu di lee syndicats d'enseignants hmm. ça veut dire bu ñu fexoon ba jël ñooñu def ko seen poche hmm. affaire bi day jàll comme lettre à la poche waaye nag yàlla def ñoom ñu wane mat gu mat sëkk patriotisme gu mat sëkk imaan ak gëm yàlla gëm seeni valeur daal di rejeter document bi mention spéciale Dame Mbodj mm. parce que moom yemul ca loola dafa dem ca rajo yeeg tele ya mm. parce que demul woon Saly mm. dañuy oo woon les syndicats du G7 alors ba mu ko yëgee dafa dem rajaxe rajo yeeg tele yëpp toj buy bi affaire bi def scandale ci dëkk bi voilà ci le président Macky Sall nag gis ne que le peuple sénégalais n'en pa pas mm-hmm. euh, bi muy def son message à la nation du deux décembre 2020 xam nga après am na jàkkaarloo bu mu am ak presse bi. Hmm. ñëpp di ko may nopp. Hmm. ba xam ndax pexe tubaab yu bon yi. pour reprendre sa expression. ndax hmm. état bi daf ciy ànd wala déet. waaye tontu na. waaw nee na daal coow li muy dégg. mu ngi biral ne. xel demul. tant que mu ngi nekk ci bopp nguur gi. lii jóge ci structure onusienne yi. bu yeboo muy ay financement bu yeboo muy ay projet alors xel demul ñu di ko weccoo ak suñuy valeur et cetera. kon nag pour tontu la ci li nga doon wax suñu daje boobu. Mm-hmm. nga doon laaj ndax tubaab yi lañ koy orienté wala état bi ñaar ñëpp. Mm-hmm. mais tubaab yi pour yëgal leen ne ça ne passera mm-hmm. état bi pour yëgal leen ne xel demul ngeen di ko avaliser pour de questions d'argent et de financement. parce que on l'a plusieurs fois répété. fonds monétaire international yorul suñu ndekki yorul suñu añ yorul suñu reer. Eh, banque mondiale noonu UNESCO noonu. dëkku gëm-gëm la. te ñun ñëpp jullit yëpp li suñu borom wax ci téeram bu tedd bi la ñu gëm suñu borom moo ne walillahi xazaahinu samawati wal ard nee na les trésors des cieux et de la terre sont entre mes mains man subhanahu wa taala waaye dafa am lu mu ci teg de walakin al munafiqina laa yafqahun nee na malheureusement loolu naafeq yi mënuñu ko xam kon ñu ngi yeesalaat état bi nañu def très attention bañ a dugg ci ndëq sërëxu naafeq yi nga xam ne depuis l'étranger ñu ngi fiy jéem a daxañ un module LGBT pour duggal ko ci enseignement bi ça ne passera kon nag daje ba ñu daje woon presque ñi jël parole yëpp dóor nañu dans ce la là ça ne passera te état bi tam ñu ngi koy mettre en garde mu moytu di signe wala di d'accord ci loo xam ne ngor bu ko dina bu d'accord comme ni nga ko waxee loolu yaakaar naa ni leer na mais aussi dañoo gis ngeen amoon ndam ci manifestation bi mais dañoo jékki-jékki dégg président dafa jënd benn avion ñu jar pes boo koy xool boo ko boo koy xayma yegg na ba six cent milliards. ñu ñëpp bëri na est ce nekkul euh, pour tëj débat boobu noonu moo tax mu andi moo tax mu jënd avion boobu noonu pour mën a noppiloo gars yi te ba ba xam na nit ñi mënuñoo toog fenn di ko débat. avion bi maa ngi dégg ci kenn ci waa gouvernement bi nee nañ du comptant la ko jënd ñu ngi commencé fay échéance yi depuis deux mille dix huit. ñoom la ñu. voilà kon ça n'a rien à voir avec cet événement là. Hmm. alors nee nañ d' après li responsable gouvernement boobu wax nee na 2018 la ñu commencé ñu ngi joxe ay acompte ñu ngi joxe ay acompte mm-hmm. te ki moom avion bi nee na du leen ko livrer tant que pay bi matul mm-hmm. waaw nee na pay gaa ngi mat booru fin juillet mm-hmm. voilà kon je pense que dafa tombé parce que nit ki waxal ko lii dëgg rek waaye du euh, dafa ne <laughs> xaaral ma trompé opinion bi coowu góor jigéen ñi xaaral ma dugg ci mbirum jëndum avion pour détourner l' attention voilà am na ñu ko gisee noonu waaye c'est pas comme ça. te yow dégg na affaire bi 2012 la woon. 2018 la woon 2018 la woon ñu bàyyi kon ba ba coow li kii ñu ñu ñu ñu xëyaat ñu ne Macky Sall euh, am na kii bu mu jënd bi jël 60 milliards. ah loolu day xaw a jaxase nit loolu du détourné fii kenn bu yeboo mu mu décroché weer wi. Hmm. exposé ko place de l'indépendance hmm. mënul fexe ba détourner attention nit ñi que sénégalais bugguñu góor kenn diine yëpp nag. Mm-hmm. mais dañoo gis ci manifestation bi ngeen taxaw rek ci wàllu ci góor jigéen te am na yenn ñi fi nekk lu mel ni lesbienne ak formation loolu nan la. nan waaw waaw xam naa da nga liirul euh, <laughs> projet eh. de euh, proposition de loi de criminalisation bi. Mm-hmm. et je précise. Mmh. que en 2016. Mm-hmm. dañu récupérer woon le programme. de revendication parlementaire bu Abdou Latif parce que benn point rek la ci jot a réglé mhm. mooy la criminalisation du délit de trafic de drogue moo mhm. jur la loi 2007-31 mhm. du novembre 2007 mbokk yi daal di ko askanale laayeek biir surnommé ko la loi Latif Gueye alors amoon yeneen point tel que la subvention et la modernisation des daara la criminalisation du viol Euh, la criminalisation des pratiques LGBT et cetera. Mm-hmm. waaye malheureusement nattu dal ko. Mm-hmm. mu daal di génn àdduna. Mm-hmm. le 8 avril. Euh, le 6 avril 2008. voilà léegi nag ñu daal di jëlaat programme bi. revoiraat ordre de priorité bi. alors ñu gis ne nag mbirum boroñ ñaari tur mu ngi jël une dimension inquiétante. alors en 2016. ñu xool ne amatuñu député. te xam nga ONG bu mel ni Jamra. mën nga defi séminaire. ay mm. euh, marche ay sitting marche ba ñu fi defoon en solidarité avec euh, la minorité musulmane mm-hmm. de Birmanie les Rohingyas marche bi fi defoon pour soutenir les anciens combattants de la guerre du Golfe mm-hmm. te seen indemnité yi fi Arabie Saoudite yónnee ñu détourné ko donc ONG mën nga def activité yu mel noonu mm-hmm. waaye am na action yoo xam ne il faut qu'il y ait un prolongement parlementaire maanaam tant que amoo kàddu hmm. fa ñuy nasay ak di noccee loi yi hmm. da ngay nekk ci mbedd mi ak di dox ak di ñaxtu ak di yuuxu ba sa put xotteeku hmm. alors comme que amatuñ fa député nag ñu daal di changer de stratégie parce que dañu ittee woon ci suñu deuxième jéego après avoir obtenu gain de cause ci criminalisation drogue dañu ittee woon ñu criminaliser aussi homosexualité alors ñuy wër député di wër yàlla dogal mu am benn xaritu Latif benn bakken mu di euh, Amadou Mbéri Sylla mhm. le président du conseil euh, régional bu Louga chaque année daf ñuy invité gàmmu euh, Serigne Dame Diop Mansour mhm. Latif moo daan dem waaye comme que wujji na borom Imam Massamba dem mhm. Imam Massamba ba muy dem nag bureau exécutif Jamra daf ko mandaté ne ko jox nañ la sañ jox nañ la ndigal nga waxtaan ak le député Amadou Mbéri Sylla bu fekkee accepté na projet proposition de loi bi fi Latif bàyyi pour criminaliser l'homosexualité mhm. alors ñu jox ko mu porté ko ci gàttal seen waxtaan juboo daal di teel a am mhm. alors ñun nag ñu fanaan ay guddi yu bari bari di liggéey mhm. sur le projet de criminalisation pour tontu sa laaj nag am na ci parti boo xam ne dañu indi leeral leeral dañu ne comme que article 319 bi dafa nee rek acte contre nature et c'est vague alors léegi nag euh, ci taxe bu bees bi mhm. dañ ko reformuler dal di viser les infractions di leen citer nommément mhm. dal di ne l'homosexualité mhm. le lesbianisme mooy góor jigéen yu jigéen ñi la zoophilie mooy góor jigéen yi tëdd ak mala la nécrophilie mooy góor jigéen yi yu vicieux yi di nekk ba guddi ñu dem fay gardien morgue yi di tëdd ak néew yooyu yëpp la ñuy jël nag ak leneen lu ko niru ñu ne kon yii la ñu bëgg criminaliser alors texte bi pare na alors euh, ginnaaw gi nag temps bi di dem y a eu des élections yu mille yi y yi eu beaucoup de retard mm-hmm. et je remercie au passage le professeur Cheikh Oumar Diagne mm-hmm. moom moo ma ne ànd sàmm jikko yi dafa am yéene bu mel noonu mais comme que yéen Jamra avancé woon ngeen ci lool wala mm-hmm. ñuy reféraat tout ce travail de conception juridique bu dee daal li ngeen ci jot liggéey ndax mën ngeen ñu ko yónnee ma ne ko ak xol bu sa dugg parce que ñun ñëpp ñoo bokk chantier bi ñoo bokk toolu xare xeex yu bon yi ak sàmm ndono lu rafet li fi mag ñi baax ñi bay ak defendre les, les idéaux de notre sublime religion kon kay amul benn problème mais jox ma adresse email am ma yónni ko ko de sorte que il n'est plus nécessaire de refaire tout ce travail de conception juridique d'autant plus que ñun biñ koy def Euh, liggéeyal nañ sax liggéey liggéey na liggéey nañ euh, nu mu tudd liggéey nañ sax ci le l'exposé des motifs hmm. xam nga proposition de loi hmm. assemblée nationale hmm. balaa muy dem plénière dafay jaar commission des lois voilà nag texte boobu ki def proposition bi ci lay expliquer li ko waral ak lu tax mu proposé ko kon yooyu yëpp defar nañ ko alors de sorte que y a plus rien à écrire tout est bien ça fait gagner du temps à tout le monde alors rawatina avant ma kay jox ànd sàmm jikko document boobu te war ko jaarale ci loxo Cheikh Oumar Diagne dañ ko joxoon suñu avocat pour mu xoolal ñu la formulation juridique ndax tegu na ci yoon parce que ñun duñu ay juriste ay ndongol daara simple lañ mu di maître Xaasim Touré xoolal nañu ko yëpp ndeysaan ba lépp aw yoon ndeysaan ci la wàcc liggéey ma ne ko yow de bu la yàlla fayee mm-hmm. liggéey bii nga liggéey avant ngay dem mm-hmm. defe naa xéewal boobu ñëpp dinañ ci xa kon nag loolu hmm. la euh, Jamra def euh, de sorte que euh, teg nañ ko ci loxo ànd sàmm jikko yi hmm. woote nañu woote bu mag ñëpp ànd nañ ci criminalisation hmm. léegi nag il est question xool bi yoon ban bunta lañ koy jaarale parce que ànd sàmm jikko ak Jamra ak la Ligue des imams amuñu fa député dinañu xool ni ñuy waxtaanee avec tel ou tel député alors rôle ba Latif joué woon ba réussir woon criminaliser la drogue alors kooku tamit mën na jaar ci yoonu tànk ba ñu criminaliser mm. euh, euh, l'homosexualité ak lépp lépp lu ci aju incha allah. Mm-hmm. noonu incha allah mais tamit sénégalais ñi ngi naan négociation ba amoon ci diggante Macky Sall ak Obama est ce nekkul ba léegi moom moo téye moom moo loolu mooy gën a may tamit gars yi doole parce que bu fekkoon foofu noonu bu bu ne woon carrément loolu waru mun nekk kon ba heure bi yaa naa ne problème bi du am. waaw loolu day wax jàmbat naa ko ci ay émission télé ak rajo yu bari. parce mm-hmm. ñu la laajee. waaw laaj bu ñàkkee teggin noonu. waaw li tax ma ne ñàkk teggin parce que. Mhm. Euh, le 27 juin 2013. Mhm. la fi Obama ñëw. waaw boobu Macky Sall la ngi doog a def juste un an. li tax ne wax ñu ñàkk teggin la. mooy mhm. euh, un président nouvellement élu. un pour à la tête d'un pays pauvre comme le Sénégal. yow nga nekk à la tête de la plus grande puissance technologique économique militaire du monde. ñu ne da nga fi def visite officielle. ku ne di dunde yaakaar daa ne ah waaw ndax yàlla boo demee daf ñuy indil ay ay ay jàppale mhm. ci wàllu mbay mi ci wàllu agriculture ci wàllu santé loolu lañ doon séntu mhm. waaye amul loolu ko wax lu danaan kañ ngay daganal ngóor jigéen kooku ñàkke teggin la ak yàpp ñu <laughs> mhm. tontu bi Macky Sall tontu itam ñun yàgg nañu wax ne ànduñu ci dafay sous-entendre ne xëy na jamono dana dox ba egg période boo xam ne on sera prêt alors moo tax ba Obama ñibbee dès le lendemain ñu dem Café de Rome def conférence de presse tontu ko waaw ne ko le président avec tout le respect qu'on vous doit mhm. d'abord c'est bien gàntal nga ko mhm. même bu fekkee bi nga koy gàntal da nga ko diw beurre ki mhm. waaye gàntal nga ko waaye on n'est pas bi la ñu ne suuf su tedd fii tant que si ay Mali mu ngi tëdd tant si Ahmadou Bamba mu ngi tëdd tant que say euh, Cheikh al Islam Baye Ibrahima Niass mu ngi tëdd euh, Seydina ak ñeneen ñu baax on ne sera jamais prêt voilà ginnaaw gi nag mel na ni. jéem na corriger sa communication. parce que at ba ca topp. sa naataango bi nekk iitale ñu di ko Audrey Pulvar. laajaat na ko laaj bu ñàkkee teggin bi. mu ne ko euh, au nom de quoi. parce que l'homosexualité a été légalisée chez vous. faudrait-il en faire une loi universelle au de quoi xam nga kon wuute nag on n'est pas encore prêt corrigé waat na communication ma en 2015 bi ñu ko invité au sommet de Antananarivo fii ci Madagascar sa naataango Franck Simonet bu TV5 laajaat ko laaj bu ñàkkee teggin boobu cette proposition indécente mu ne ko bi nag il a été un peu plus plus plus nit ki waxal ko rek li mu def parce que bu fekkoon dafa wax leneen itam dinaa ne lii mu def ànduñu ci comme bi bi mu naan on n'est pas encore prêt on l'a condamné déploré fustigé waaye bi mu jàkkaarloog Franck Simonet nee na ko mais yéen ayez la modestie yéen Europe de reconnaître à chaque État même fût-il un ancien État euh, euh, euh, sous colonisation le droit de définir sa propre législation voilà léegi nag na na na ngoy ci loolu te xam ne moom en tant que chef d'État c'est le cas de tous les chefs d'État du monde mooy porte-parole réew mi à l'étranger lu mu wax à l'étranger ça nous engage. Mhm. voilà kon on n'est pas encore prêt na ko bàyyi. na ko bàyyi na dëgër ci wax ji mu wax. lobby homosexuel yi may ko jàmm. Mhm. may suñu dëkk jàmm may ñu jàmm. Mhm. mais tamit ñu gisaat tamit ah, maanaam ci wàllu quarante yi gars yi niñ ci am du coow lu bari léegi sénégalais yoo xam ne am nañ ko seetlu parce que dañoo gis ne quarante yi léegi dañ ciy bind genre te bu njëkk ba daan am genre féminin am masculin. léegi ñoom neen est ce na loolu noonu lobby yi ñoo ci dugal moo tax ñu bëgg a def noonu. en janvier 2019 mm-hmm. Jamra dafa alerté woon def déclaration def point de presse. Mm-hmm. Imaam Massamba moo ko animé woon. Mm-hmm. parce que dafa am lu xewoon Allemagne. lii ngay tudd noonu fa la tàmbalee. lobby homosexuel yi dañu def pression ci gouvernement bi. ne d' accord ñu nit ñi tabaxee. les documents administratifs. parce que dañuy gis kayitu juddu yi permis de conduire yi ak yeneen xeetu documents administratifs. bu ñu defee. prénom mm. deux points nga def sa tur nom deux points nga def sa tur mm. âge deux points nga def sa tur alors bu ñu demee nag ba ci euh, sexe mm-hmm. ñaari case la rek waaw benn euh, mm-hmm. nga def M bu dee góor la mais ci allemand lay doon mm-hmm. beneen bi nga def F sexe féminin lobby yi nag ne ils se sentent exclus parce que ñoom gisuñu seen bopp ci góor gisuñu seen bopp ci jigéen alors di def pression gouvernement bi tànkam lu leen ils ont fait monter la pression d'un niveau supérieur dal mm-hmm. di saisir mm-hmm. euh, le la cour constitutionnelle mu mm-hmm. di la plus haute juridiction foofa ca réewum Allemagne ñu tamit daal di duut baaraam le Bundestag le parlement allemand c'était en 2018 lii ma lay wax nii dal di parce que ñun ñu ngi alerté woon en 2017 ak ak 2019 ci affaire genre bi alors daal di duut baaraam Euh, Bundestag c'est le parlement allemand ne leen ñii ci réew mi la ñu bokk kon seen doléance bi euh, ñun cour suprême may nañ leen yéen assemblée nationale allemande ba fin décembre 2018 pour ngeen statuer ci mhm. fii may wax ak yow nii c'est réglé mhm. le 18 décembre 2018 le Bundestag voté na officiellement mhm. que tous les documents administratifs dañ leen di réformer ni muy amee une case pour le sexe masculin am une case à cocher pour le sexe féminin dafa am beneen case bu ñu tëdd divers de certains documents divers la mhm. c'est dans d'autres documents euh, euh, euh, sexe intermédiaire wala sexe neutre mhm. Mhm. voilà kon le troisième genre et officialisé assemblée ko voté assemblée nationale alors léegi nag am na dëkk yu leen topp ku ci mel ni Hollande roy na leen ku ci mel ni Autriche roy na leen France jógoon na pour leur emboîter le pas foofu ñun la ñu tiitoon parce que foofu mooy Euh, foofu mooy suñu nàmpukaay yi ci wàllu roy dàq mm-hmm. waaye nag ñoom lobby homosexuel français yi ba ñu déposé mm-hmm. le conseil d'état daf daf leen débouté mm-hmm. waaye ñoom itam uti nañu doole si ay avocats yoo xam ne c'est des juristes homosexuels ils sont ils s'apprêtent à revenir à la charge alors dans cette déclaration la bi mille Jamra defoon 2017 2018 ak 2019 ci la ñu ne nag ñun on est fondé d'avoir des craintes parce que gis nañ déjà état bi Sénégal ministère boo dugg am na département genre te mbir mi jëkkee doy waar ci structuration euh, nomenclature gouvernementale yi am na ci ministère bu tudd ministère de la fem de la famille et de l'enfance loolu doyul lan moo ci ndeyu et du genre genre de quoi parce que suñu boroom créewul trois entités sexuelles homme la créé hmm. femme mm, point il de sexe intermédiaire il y a de sexe neutre il mm-hmm. de troisième genre mm-hmm. alors xeex nañ ko mm-hmm. ñu di ñu gokkali nday Jamra waxati na ah waaye léegi gis naa ne kuréel yu bari euh, la Jamra yàggoon xeex te wéet ci voilà ku ne jël nga ko euh, intégré ko kon ñu ngi ñaan yàlla def ci ndam parce que bu boobaa du ndamu benn kuréel ndamu euh, ummatul islamiyya bi yëpp la ndax xam nga yàlla dafa dogal initiative toujours dem fu mu jógee waaye c'est pas important li ci am solo mooy finalité bi. Mm-hmm. moo tax très souvent dinaay dégg ay avocat naan c'est la loi de Latif Gueye euh, ma ne du loi wu Latif mm-hmm. Latif daf ko xalaat rek. ay xam mbokki député mi jàppale ko ci. Mm-hmm. mu daal di ànd ak son staff ñu tëju bind ko. waaye Latif moomatu ko. la loi 2007 31 dafa nekk un patrimoine juridique national. voilà kon nag euh, xeex yeneen yi ñuy xeex. ci wàllu euh, xeex contre valeur yi. bu ci mënti aboutir tam. kenn du ko askanale benn kuréel alors dafa nekk loo xam ne ndamu ummatul islamiyya bi la et du peuple sénégalais dans sa globalité quelle que soit seen croyance te ñu mandargal leen ci àdduna que c'est un peuple épris de valeur de liberté et de paix incha allah mm-hmm. d'accord bu ñu jigee foofu tamit tamit sénégalais yi am na lu ñu wax ne pourquoi euh, waa Jamra war ñu cee taxaw comme léegi lu xew léegi réseaux sociaux yi toog fi nga toog filmer sa bopp def tumeeku di ko tasaare ci àdduna bi léegi loolu nan ngeen ko gisee. waaw loolu day kii moom moo ko signalé démb. waaw euh, nu mu tuddati na nga ma baal sa naataango jox ma turam démb. <laughs> waaw ñoom daal la la laa déggee loolu. nee nañ sax am na tur. am na tur am na ñu ko def. naka la tur kii bi tuddee sax. Euh, ñu ko def xaw ma émotique ko xaw ma lan. ah lomotif <laughs> lomotif ba ma ko waxee man ma affaire bi jëlee ma kaw. Mhm. ndax man léeg damay tardé. Mhm. ci do dox doxalinu jamono ci. Euh, niveau jeunes yi. Mm, mais loolu léegi mu dooma dooma dooma dooma baaxee. Ah, faram fàcceel ma ko mu daal di ma expliquer. li nga ma expliquer waaw. Uh-huh. donc euh, ni nga ma ko waxee. Mm-hmm. noonu la ko waxee. Mm-hmm. alors ah xam nga loo doog a yëg rek. mais mais mais loolu mi ngi toj lëmbe bi nekku na euh, moment bi mais loolu yàgg na am. ñu ngi ah. laaj yéen ban taxawaay ngeen ci war a mën a am. wax dëgg yàlla maa dimbali xale yi. maa doog a yëg xam nga mm-hmm. ñun lu ñu yëgul. dañ koy gëstu. waaye bu ñu xasee ba am ci ay yàqin bu wér. ak mhm. loolu ustaas di wax dalil on attaque. Mhm. c'est ce qu'on avait fait avec euh, le business du sexe ay wax rek la woon. Mhm. mu ngay def lii mu ngay def laa ma ne leen may leen ñi ñu gëstu. ba ñu gëstoo am yi preuve. def ko ci ay clé USB def plainte déposé ko CNRA CNRA fëgg leen 3 millions d'amende arrêté série bi. Euh, bi nga xamee ni bi euh, kawteef. bu Sen yi ñu bare may woo ay dañuy saaga ay ndey. Euh, nangam ma ne may leen ñu ñu gëstu. Mhm. ba ñu gëstoo ba am ci ay preuve def ko ci clé USB boole ci plainte jox ko mhm. CNRA. Mhm. mu fëgg leen sanction arrêté série bi. ba ci production boobu ñu naan le business du sexe. mais mais tamit ñu fëgg leen cinq millions d'amende arrêté série bi mais Lomotif yi. bés bu ñu amee ay preuve itam. Euh, dinañ def li ñu yoon may. mi ngi toj dëkk bi de. waaw ah, d'accord maa ngi koy doog a yëg. xanaa nag di ngeen ma di ngeen ñu muñal ñu jël tuuti recul. gëstu ko. Mhm. Euh, préparer suñu dossier préparer suñu plainte jox ko suñuy avocat mu daal di mhm. saisir euh, le conseil national de régulation de l'audiovisuel waaw mhm. mais incha allah di ngeen ñu ci dégg incha allah parce que ñun du ñu di cof di bàyyi lu ñu song rek dañuy dem ba jeex tàkk ngeen bëgg am loo xamante moo leen gën leer ngeen ci doog voilà mu ngoog la loi sax bi nee na boo saisir CNRA doo joxe plainte rek parce que plainte ab kayit rek la mën nga ci raconter ta vie du n'importe quoi loi bi dafa ne da nga ciy boole des da koy étayer par des éléments probants mhm. maanaam ay enregistrement wala ay extrait audio wala vidéo mhm. waaw ne lii ne sama plainte bi firnde yaa ngi nii bu ko defee kooku itam mhm. il va gagner du temps au lieu moom itam muy dem di def ay investigation mm. day am tous les éléments à yoo xam ne dina ci mën a sukkandiku avec son équipe mm-hmm. daal di jël décision kon nag lomotif yooyu ngeen di wax dinañ ko gëstu incha allah mm-hmm. jërëjëf euh, kii mooy maam imaam Makhtar Gueye ndeysaan moom toog moom rek ba mbégte la euh, du ñu def lu rek jox ko mu tàggatu waxtaan bi xam naa ni neex na am na solo imaam lu ngay tàggatu waaw maa ngi delluwaat rek di amaat mbégte rek ci jàkkaarloo ak yéen parce que mm-hmm. jàkkaarloo ak yéen plaisir la ndax yéen xamu leen di wër-wërlu. Mhm. xamu leen tamit loolu euh, moo nami dàmbooj di wax naka la tudd sax. layam mhm. layam layam layam waaw <laughs> layam layam xamu leen wiiri wiiri. Eh. moo tax nag ngeen seen tur wi. Eh. dafa niroog yéen. Eh. maanaam Dakar net. waaw kon na ngeen continuer di net rek. di rek ñu ànd ak yéen di net. Sénégal jëm kanam incha allah <laughs> salaamaaleykum wa rahmatullah. jërë ngeen jëf mbokk internetu Dakar net tey lii la leen àndiloon di doon dalal imam Makhtar Gueye ñu gis waxtaan bi am na solo. am gis nañ ci xam-xam tamit euh, di leen wax di daje ak keneen incha allah di gërëm sama caméraman ak technicien yi ma ànd ak yëpp di ci jiital jee Samb jaajëf.